ayca mbokk yi grand combat boo ngi noonu diggante Dame Sène ak Pambaay ñoom ñaar ndeysaan weccoon nañu ay coup weccoon nañu ay coup ndeysaan mbokk yi Dame Sène moo ñu won gannaaw ñu jàkkaarloog Pambaay laa ilaaha illallah journée Ibou Laye production Dame Sène jege na saako yi weccoon nañuy coup dooral ma door laa ilaaha illallah Dame seen Pambay oh jàppante nañu et puis kil rokos rokos Pambay ngay rokos eh Pambay door na ko mu rëpp rëpp na day jeex wala du jeex mboot na ko mu bañ laay ilaaha illallah door na ko mu genn saako yi eh, eh Pambay door na ko mu génn saako yi Pambay door na ko mu génn saako yi laa ilaaha illallah eh, eh. bi metti na. arbitre jox na avertissement Dame Sène arbitre suuf la waat na génn seen diggante Dame seen Pambaay mbokk yi daam seen Pambaay Dame Sène moo ñu won gannaaw ñu jàkkaarloog Pambaay mbokk yi ñoom ñaar attention daam cokkaas Bambay gëj a bëre tukki woon demoon Espagne mu retourné li mooy premier combat ay ca Dame Sène diggante Guédiawaye la ak Parcelles attention dóoral dóoral ma door waaw waaw weccoo ay coup Dame Sène Pape Mbaye mbokk yi Dame Sène Pape Mbaye mbokk yi ndeysaan def ay déplacement Bambay cokkaas na lan la bëgg day dem attention waaw waaw ñu ngi xeex xeexu mbedd la ñuy xeex Bambay kor na Bambay kor na attention mbaa du ko dóor mu daanu attention mbaa du ko dóor mu daanu Bambay mi num jëlee Espagne nii laa ilaaha Dame Sène ak Pambaay ndeysaan attention jël mu bañ génn na loxo ba kor daam kor na Pambaay Pambaay nag mbër mu naqaree bërël la ndax macha allah dafa ës arbitre soufflé na lu xew ardo Dame Sène dem na Ardo waaw waaw Matar a ngi noonu ci biir stade bi ndeysaan Dame Sène amul coach gis nga baam mi ngi noonu kenn toog ci baam mi ngi noonu ñu dëpp ndeysaan Dame ngi noonu taxaw Dame ngi noonu taxaw ndeysaan waaw waaw daam a ngi laaj ndox daam seen a ngi laaj ndox daam jox nañ ko ndox walla dañoo mitan dafa mel ni dañoo mitan mais grand as yaa ngi sama biir sang mais pambaay mi na xare naa bëral de li nag écrit war nañ cee bàyyi xel fexe wutal seen coach yi li nga xamante ne bii moom mooy ay carte yi leen mën a may ñu mën a toog ci siège bi ngir assister seen poulain yi da ciy baax daama gi noonu di dellu daama gi dellu mbokk yi Lam dellu na. acca mbokk yi arbitre soufflé na wala ma ngay waaj a soufflé ma nga noonu soufflé na Dame Sène Pambaay ndeysaan Dame Sène Pambaay Dame moo ñëwoon gannaaw ñu jàkkaarloog Pambaay Dame mu ngi cokkaas mu ngi dox ci kawam. daam lan la bëgg ndeysaan daam cokkaas na attention door goosu daa jàppante jàppante laay laax la laa jàppante nañu ca kaw jàppante nañu daam génne na loxo ba daam génne na loxo ba lan la bëgg daam seen ak pambaay ndeysaan jàppante nañu daam seen ak pambaay attention daam génne na loxo ba siggi pambaay dugal na bopp ba jàpp na benn loxom lan la bëgg daama ngay jéem a xar pambaay bañ ndeysaan arbitre ba sifflé na ardo ardo daam seen demal wuyu ardo ndeysaan mbokk yi diggante Dame Sène ak Pambaay ñi ngi lewaatoo di déglu wante journée Ibou Laye production cokkaas na Pambaay remis waaw waaw Dame Sène Pambaay Dame moo ñu won gannaaw ñu jàkkaarloog Pambaay mbokk yi Dame moo am ngemb lu ñuul li am tojtal lu bula ci gannaaw noonu foqante nañuy baaram attention arbitre sifflé na mi-temps mi-temps nañu ayca arbitre sifflé waat na diggante Dame seen ak Pambaay attention percule door ci suuf ñoom ñaar wàcc nañu ñoom ñaar wàcc nañu oh jogaat nañu oh oh cey bii combat laa ilaaha illallah oh mel ni Pambaay am na lu mu bëggoon daama ngay jël daam ngoobu na ko mu bañ laa ilaaha illallaah pambaay tibb na ko sànni na ko dan na ko pambaay dan na daam seen pambaay dan na seen pambaay dan na ko